Heavy Bass.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 mbir moomu nag mu gënaat teeri ca tribunal flagrant délit bu Thiès waa ji mu ngi wuyoo ci turu MF ati toll ci fanweer ak ñett fi mu ne yoon mu ngi koy toppee li ñu naan blessure volontaire gaañ nit te tay ak li tubaab naan mise en danger de la vie d'autrui maanaam daal jël dund nit dugal ko cib danger mbir mi nag nee ñu nii la demee waa ji dafa invité woon corom soosu ci këram bi mu ko invité corom si daal di koy lakk ay daada ne jigéen ñi gaaw nañ ci nag ne ko day metti tey munu faa ñëw waaju bi mu génnee ak otom di circuler ci la seen corom si ci benn moto jakarta ñu supporté ko naka noonu firange daal di koy daab waa ji dal di topp moto jakarta bi corom si nekk ñu naan deetawaay mu dal di foncé oto bi dal di mbëkk moto jakarta bi corom si nekkoon ba ndaw si jëlee si ay gaañu gaañu yu metti waay <laughs> ma ne firange baaxul mën naa defloo nit lu ne ndaw si nag bi mu jógee ci loolu ci la porte plainte ci kanamu attekat bi nag waa ji dafa weddi ba tëdd ci naaj bi ndax daf ne mbir mi l'accident la moom ci boppam sax bi l'accident boobu di am xamul woon ne corom si moo nekk ci moto jakarta bi <laughs> ma ne ko mbaa du tombe <laughs> laaj bi nag mooy est-ce que nit dina bëgg nit ba noppi wiir ak otom mbëkk ko bëgg koo faat <laughs> ma waxaat li ma waxoon rek fiiraange mën naa defloo nit lu ne moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën a de graw korona laa wax la xew ca Kédougou doy na war élément brigade bu sabodo la ñoo fa teg loxo ñaar téeméer ak fanweeri tiis d'explosif ay mbel musiba naaru lay ak juróom-benn fukki détonateur électrique explosif yooyu nag ñi ngi ko tegee loxo ci benn ressortissant malien <laughs> ma ne réew mi de comme rido may ga baax na rek waa ji ñi ngi ko tegee loxo ci diggante village bu ñu naan Diabougou ak beneen village bu ñu naan Tenkoto ressortissant malien boobu ñu fekk ak explosif yi ab orpailleur la moom daal bi ko gendarme yi détecté lañu ko topp fekk boobu waaj mu ngi ci ab moto naka noonu ci la ci waa ji tegee brique gaa topp ko topp ko ba dal di koy teg loxo fekk mbell yi mu yoroon mu ngi ko defoon ci ab saaku ceeb gaa bi ñu ko lankatee sëkkatal ko sawaay def na explosif yooyu mi ngi ko jëlee ci ab village bu ñu naan Sereto nekk ci frontière u Mali laaj bi samp nag mooy mbell yooyu fuñ ko jëme woon fi mu ne waa ji mu ngi ci loxoy procureur bu Kédougou moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax Aliou Dembourou Sow borom jaas yi nag di ab député ci Benno Bokk Yaakaar lañu songu ab otoom dal di toj vitre yi mbir moomu nag mi ngi xew vendredi bi weesu diggante trois heures du matin ak boori sept heures du matin oto bi ab Land Cruiser la bu weex moom daal Samba Boy buntu këram lañ ko fekk ca West Foire di toj vidre oto bi sakos ba ca nekkoon dal di koy yóbbu waaye nag la nekkoon ci sakos ba amul solo ndax nee nañ li nekkoon ci sakos bi ab flacon de parfum la <laughs> ma ne leen de gars yi dalu leen ci xanaa mooy lii wolof njaay di wax ku sàcc tama moom foo ko tëggee jafe la waaye ku sàcc parfum moom foo ko piicoo jafe la ah, xanaa gars yi piicoo ko rek te bañ jaar wes Foire mi lu ne fi am mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci ci yeneen xibaaru bës.